so na maa ngi fi rek. noo tudd. maa ngi tudd Lamine Ba. au Sénégal waaw Sénégal fan nga jógee ba ñëw Sénégal. maa ngi jógee Japon. Japon waaw waaw lan nga def fi Sénégal. maa ngi liggéey ci Aymen. Aymen waaw sa euh, mission sama mission. Hmm. Eh, yokk sen am-am ci baykat bi. seen xam-xam ci baykat fii fii fii soo ñëwee fii ba nga ñëwee Sénégal lan ngay lekk fii. <laughs> lekk. Uh, maa ngi ceebu jën. ceebu jën yaa sa ginaar. yaa maa maafe. cu. cu ak lan. cere cere. waaw la loolu lépp ban ma si dàq ban ma si neex a neex. ci ci rafet musulman. waaw tamxarit. tamxarit tabaski. Ah. maa ngi rek cere. ñu ngi lekk waaw kon nga taaje bon <laughs> taaje bon. Ah. Ah. taaje. <laughs> jërëjëf.